Gambia's health and food safety authorities have established the use of uh, sniper spray and other dangerous chemicals on smoked fish in the country. during the establishment process, a total of 57 fish samples were collected from seven fish landing sites and nine markets within the Greater Banjul area. 11 samples were randomly selected as samples for analysis at uh, Sierra's Lactose Laboratory in Dakar, Senegal, to determine the presence of pesticide on the fish. Mafuji Sise has the details in this report. Dr. Dauda Baji is the executive director of the National Environment Agency. He said the Gambia will now administer a total ban of the use and importation of sniper spray in October 2022. As you know, the issue of sniper has been on for a very long time. And at some point, government created a moratorium which means because it is uh, it's not actually a banned product because it's meant for agricultural purposes. But there is a kind of a misuse in the use of sniper, which means something that is meant for farmland is being used to um, address our bed bugs or whatever um, uh, thing that make us unpleasant in our in our homes or in our in our rooms. So essentially, there was an, a moratorium and that moratorium was placed for people not to be using the sniper. And later on, this issue came in where we had an engagement with our board, uh, the chemical board. Then we said, looking at the situation of this sniper, what can we do to address the problem? Then we came to the conclusion that the sniper should be totally banned in the country by the 31st of October 2022. The use of the killer chemical by smoke fish vendors has raised a public outcry as many outline health implications on people that could be a result of the presence of the chemical on food. Mamadou Dubai is the Director General of Food Safety. He said it cannot be established yet whether sniper spray is responsible for the rise in kidney failure in the country. All fish processors, therefore, distributors, and vendors are hereby warned to, dis- to, to cease and desist from the use of pesticides in fish and all other food products. Anyone found engaging in such unscrupulous activities would be in breach of the law and therefore shall face that is surface the undesirable consequences that comes with it. The, the results further indicated a high residual concentration of dichlorophos in the samples collected from the back of the fish market with a concentration of 9.18 milligrams, the presence of other insecticides, permetrins, abamectins, cypermetrins, and bifenthrin was also found. The sniper product found in the Gambia contains a highly toxic organomophosphate compound, which is very toxic to human health and the environment. Sniper was originally formulated as a plant protection product to be used only for agricultural purposes, 1000 grams per liters. It was also used as biocide at much lower concentrations concentrations, mostly 25 grams per liter. Sniper is a banned product in the Gambia due to its toxicity, continuous misuse and abuse of the product. For African News, I am Mafuji Sise. All right, thank, thank you, Mafuji, for that report. Quite very interesting. Um, finally, it, it, has been confirmed. The sniper spray has been used, has been used um, you know, in, in, in, in, of course, in our smoke fest here in the country. After when the news broke out, it has sparked so many tension among the communities and the people, of course, I have to say, because we all know that almost every family here or household um, uses, uh, or of course, should I say, you know, of course use uh, the smoke fish in one way or the other. So, but if the news of this nice um, of course, the sniper spray, you, I mean, uses has been uh, was announced and um, or reported, I think, of course, it, is, it will trigger some, some concerns here and there. But eventually, um, you know, uh, the authorities took up the responsibility and said they were going to uh, do a test and send the uh, samples in Senegal, where eventually it was confirmed. It has been confirmed that the sniper spray, of course, well, um, has been used uh, or were been used in the uh, on, on, on, our smoke fish. So that's, that's the very unfortunate uh, development, I have to say. Yes, uh, Monyang, kon ni ma ko waxee rek uh, xibaar bi bu mu fesee ne uh, sniper spray bi nga xamante ne yëpp xam nañ ko mu ngi ci dëkk bi te dañ ko anam waaye ñu dégg ne dañ ko doon yuus si kaw jën yi am na vidéo yi génnoon na dem viral coow li bari woon nit ñi tiitoon nag lool waaye ñi nga xamante ne food safety si jamono jooju mënuñ ñoo nangu wala weddi li nga xamante ne nii li ñu doon wax li ñu wax ne ñoom balaa ñu koy déggal wala ñu dàqalu ko moo foog ñu dem ñu test yëf jël sample si yóbbu ko Dakar soriwut loolu nag xam naa ne euh, jaroon na ñu def ko parce que daf doon dafa foog ñu dalal xeli nit ñi ñu déggalu am na wala amut waaye ñu ci mën a jàpp ci ñoom li ñu wax gannaaw bu ñu defee testing déggal na ne euh, ñu ngi doon use sniper spray bi ci kaw jën yi nga xamante mooy jën yi làkk ci marché yi ñoo jaay ci marché bi pour dak weñ rabi ak yenen rabbi dañ ko don spray ci kawam pour tamit mu nekkon lu doy war euh, ban jangat nga am ci xibar bi ak li nga xamantene takawai niko taxaway bu ci kilifa am day tay ñu xamne deggal dëgg lu am la <laughs> amadou euh, amna solo mhm. xam naa bu bu takawai mhm. taxaway bu doy war taxaway bu xamna ni su fekkee façon yi bi lañu xaar mhm. <clears throat> dinañ yàgg am disappointment gos taxawaay bi sa njëlbeen la woon mooy ne ñu nga xam ne ñooy saytu food safety mhm. su nekkoon ne seen taxawaay seen wareef seen liggéey ñu ngi ko doon def mhm. amaana du doon aksi si fu ñu agsi ni tey bay war a jël ay sample di ko yóbbu ba dakaar mhm. ñuy def test bi pour war a xam loolu lan la loolu rek beneen affaire la so waaye noonu lu ñu ko doon tesee Dakar Gambie ñoom mënuñ koo am si nekkoon ñuy def seen liggéey la am ay represent, fu ñoo jaayé lek di fa dem toujours du set ñom ñoko tégal tegal seen bot du doon jar sax yobbu sample si fi ba Dakar lolu rek Amadou benen affaire la bu nga xam ni woné ti né né war nañ ñun ñoy ñan. Mm. war a suñu taxaway ak suñu togin war a naka lañu euh doxalé suñu réew gos li ñu ciaganté ñoo tax li mu am. Mm. ñooñu tey ñoo yëgaloo sample yi dafuñ ndam de man mënuma considérer li ak suñu ndam dama considérer né food safety defoon sen liggéey. dañ lajj dañ lajj parce que suñ defoon sen liggéey duñ ag fi ñom ñoko doon tegal sen bot mhm. xam li stop ko te ba legi gis nga li fi am yow gis nga Brikama market mhm. fils bi. Mhm. naka la menoon. ay Afrique dem fa ñi gene bagage ñi dem daal di close. marché bi marché bi lu fa nek ak yooyu non so liggéey do dee xaar be dara xew nga door a dem. da nga war nga da nga wara dem before. di gëstu parce que nguur daf leen jox lu mat. fo tourner sen auto yi mu ngi fa ñu ngi leen jox ay pick up jox leen lépp dañ war a dugg fu fu nit ñi di jaay lekka di gëstu nit ñi di seet ndax nit ñi sell nañ sellal nañ bot loolu defaloo si dara ba lii xam nga ñaata nit ñoo si lor xam nga léegi loolu ñu ngi doon wax ne amut léegi leer na na am na te loolu sax dafa am ñu ko gisal seen bopp sax te dafa yàgg am si réew mi te mosuloo gis si euh, food safety joxe dar report kon ñoom dañoo laj defuñ li ñu war def Richel ni nag dem nañ Dakar joxe nañ sample bi léegi li ci des mooy ne. est-ce que foofu tamit war fa taxaw parce tamit ñoom xëj na soo gisee ñu jël sample bi euh, collect so different sites different marché dafa jumtukaay yu ñu soxla ci réew mi laboratory test bi nga xamante ne sax waroon naa am ci réew mi pour ñu mun a def test loolu amul fii soo defoog ñu sukkandekoo euh, fenn moom ñoom tamit balaa ñoo jékki-jékki rek ne lii am na walla amul fook ñu. teg ay fax te loolu dafa soxla pour ñu test te loolu balaa ñu ko def foog ñu dem ba Dakar te loolu tamit est-ce que nit mënut a understand xëj na ñoom tamit du seen yéene xëj na seen bu ko ne mën nañoo def sax yëf yi la ba amul yëf yi amul fii. ok tamit seen nguur gi yem ci d'accord naa comme que amuñ bagage yi mën a test loolu. waaw waaye fu sëf du tey yàgg na fi. Mhm. te si ron office du vice président la nekk. Mhm. nekkul fu ndaw dafa jege trop lii di njiit réew te lu mu kon lu responsabilité am dafa am solo si askan si dundu nit. mooy nit li muy lekk biir du box booy ubbi anytime jël dafay ubbeeku waaye bu ubbeekoo nit ko ko xamal ne am na daanaka genn wàll nit la mm-hmm. garantie bi jeex na mm-hmm. soo lu si dee moom maanaam ñàkk def seen liggéey su fekkoon ne tey seen agency ñoo si teg seen bët it's not nit gars dem ba Dakar di def test bi dañoo xam ne this is lii problème bi ma fi ñu war a dem di saytu nga xam ne ni jaar na yoon wala jaarul yoon wala sellal nañ oo sellul ñoom dañ deful seen liggéey si loolu mm. loolu mooy problème bi am nga am na nag buñ fii rayon gis naa kees boobu noonu Sukuta police station nag bi dafa dee gars yi dem bëgg koo lekk ñi koo leen gars yi ñëw jël nag bi am na yéen a xam ne ay ay ay ay faale nag jaañeen ñi rek seen koñ bi foofu commencé fees nag bi ñu ñëw arrest gars yi yëpp wala moo si gën a ndaw parce tey waroon nañ di dem si marché bi am agent si marché am agent spécialité tefes gi foofu noonu mm-hmm. su fekkoon ne tey def nañ seen liggéey nu mu waree dama ne dem Dakar di def test du am waaye nag comme ko defuñ ko c'est normal pour ñu dem def tes bi ba xam ne li ñu doon wax ci askan ne lii am na dañoo jël poison poison laa ko mën a ooyee sax. di ko spray pour bu fa weñi dal loolu am na. ok léegi problème moo ne dañ laj yi ñoom ci seen liggéey. léegi léegi balaa maam di ñëw euh, ku xam kobo ak jën bu lakka lu nekkul lu bees ci réew mi. yàgg na yàgg na ci réew mi ay at ñu ngi koy dundee. Mm-hmm. Euh, bu ñu demee ba xibaar bi jib. mu fes ne ñu ngi koo use ñu am ci taxawaay bi lii fes ndax mun nañoo jàpp ne li yàgg am na xëj na defa dafa dafa liig rek ñu soog cee react ba pare tamit comme lii bu continuer mënoon naa jur masi ba ci réew mi du kenn du xam parce que nit ñi ñu ngi koo lekk te ñu ngi cee use li nga xamante ne warut a am. mbaa sa jurut ay musiba parce que lii man dégg naa si ay jigéen ñi ne lii yàgg na am li du du yëfi tey hmm. du mbir bu start si ñaari at du mbir bu start at yàgg nay am. dafa mel ni kon def na fi ay loraange luñ xamul léegi nag ñu am kuréel guñ fi dénk saytu lekk selli lekk ak sellal ko ki ko jaay sell lu mel nii di am si réew ay xat yëgoo si dara ba recent li nga dool koo gis kuréel googu dañ war a seetaat taxawaayam wan ko ne yow sa liggéey nekkuloo di ko def ni la ko yoon santaane bu ko soo ko doon def say ñooñ dinañ si teg seen bët te non du jar jël sample yobbu ko because ki nga fa tek bu fi tegee mhm. dañu japp jàpp ñu def ak ñu li ci yoon war waye neen wat neen ñom ñoo wara a seetaat seen taxaway te xamne li tax ñu denk leen seen liggey mhm. bor bobu dañ ci laj bu ok euh, mam euh, legu legi da fay da fay metti ci so xolé yenn pour nit ñi understand suñu yenn institution ci moy yenn béréb yi ñu seen taxaway ci ci yitte nit ñi euh, so xolé Euh, nga jox exemple institution yu bari léegoo léegi ay jafe-jafe daf lay am ci askan bi dañooy bàyyi ba mbir am ñu soog a react pour nit ñi xam ñoom ñu ngi existe wala lu ñu war a def ñu war nañ koo def wala ne war di ko def tey boo xoolee tamit bu yàggut dem nañ fi ñoom seen bopp ñu report ni jàpp nañ ak nit ñu ngi jël mu ne demoon na fa ay pono mhm. di lakk mhm. te ah, loolu ñu ne ay loolu ah, tamit loolu tamit yàgg na fi maire ah. na ko fa ba si loolu la jënd kër yaa jàmme ko fekk na ko naka ngaa liggéeyee lii yaa jàmme may ko mu jënd kër. Mhm. mu mu mu jur si ay doomam bu gos mu maa woon ne time boobu mu ngi dëgër ak léegi màgget na si la nekkoon waaye mun na ma lii yàgg na fee am. man ne ko ndax gis nga ñu saytu mbiri lekk comme xam nga ñu bari xamuñ food safety boo ta felak yooyu leen xamoon na mhm. mu ne leen fee gis jël ay te loolu te loolu am na lu si des si war naa man léegi kaw kànd moom tegee naa ko say tam lu ma bëggoon la waaw waaye bu ma gisee système bi foofu lu mel loolu loolu te ñoom demuñ so de demuñ fa. jël amaam ay tànki moto di ko lakkee. exactly ah, dafa nga dem ci réew loolu di am. loolu di am. ñuy léegi ñuy wax ay sniper spray ñu ngi koy use si ay jën te nekkul lu bees ñoom ñu déggal ko. Mhm. Euh, ba léegi ñoo ñu ngi wax ne fii ay ba octobre nañ samp loi yi nga xam ne dana tere pour ñuy jëfandikoo ko ci réew mi. donte ne sa amoon na embargo bu ñu waxoon ne loolu euh, place nañ ko nit ñu ko reduce waaye mu ngi doon am lan lañ mun a jàpp ci suñu institution ñun dégg te réew mi. bankas yoy la mëna sukkandiko pour mu dox bu fekke nak ñom seen taxawaay daanaka lu ci gëna fess dañoy bay bi tu xiduna am wala ay dara am ñu sogari react est-ce que da fay bax ci doxalinu réew. Eh, am amna solo du bax ci doxalinu rew because of lool yëpp da fa to attitudinal change. gis mhm. nga nit yi ñoo war change soppi suñu jikko. Mhm. tay fogg naa ne bala ñoo sax ci institution si, bu ñewé ñun suñu yo tay yow nit ki lan mo la war a jaral ut. ba nga bëgg a fagaagal ay nit tey comme fi ñu ngi doon waxee léegi boo ñëwee ci li mujjee mooy panu yooyu te yow panu nga xam ne élastique la nga jël ko defer ko def ko yàpp nga jaay ko nit mu war ko lekk nga xalaat ne kooku loolu dafa war a res si biiram mu dem génnee ko kooku bu dundee loolu tey da ngay gis xale bu ndaw biiram bi am nii. est-ce kooku tamit war nga koo mun a blame dat moo ci parce que na nit ki tolluwaay bi ak tamit li li li moo def ba dund te mu yàgg koo def gisul kenn xëj na moom implication yi fa nekk. Mhm. ci dangers yi wala ci impacts yu ci am xamut ko ku war a ku war a ku war a ñëw wax ko ne yow li ngay def baaxul because of tel tel ABC. Mhm. boo kooku waxu te kooku réew mi jàpp ne kii dafa am xam-xam pour mu teg nit ñi ci yoon. ñooñu buñ toogee deful seen liggéey est-ce que tamit loolu tamit. waaw ñooñu doomi Adama dafa dafa xam naa fi ngay waxee waaye nit ki tamit ak. ak ak bugg bugg gis nga Amadou ñooñu. suñ institutions yi fanaa yàgg nañ di ko wax te duñu ci tey di ko wax ñu bari ci place yi ñu nekk gëm naa ne ñoom sax bu ñu amoon imaan ak yaqinu ne li tax ñi fal leen moo war a tax ñi receive salaire yu ñu yóbbu seen jaboot ñu xool ndax ñu ngi matale seen liggéey ñoom ñoo war a xoolaat seen jikko tey exemple food safety li ëpp ci li nga leen gis ñi ciy dox daanaka du interessu 75 percent of population bi workshops yi nga xam ne ñi ngay sensitize allowance yi nga faa jëlee ak yooyu te mu leer la ne soo demee ci ground bi li fay am daf lay leer ne lii yow sa boppa sax mun nga see nekk victime either one way or the tey nga bàyyi ku nga xam ne kobo ñu ko du lekk ci dëkk bi néew na de ci mbaxal yi ci yeneen ak yeneen ak yeneen yu nga xam ne nit ñi bëgg nañ ko kobo boobu nga jël sniper lu nga xam ne yow tey bu la ay matt sonnalee sa néeg loolu ngay jël nga def ko mu rey ko bu la ay xam nga man mënuma imagine sax bi ma déggee lii ma xalaat ñu koy def yan façon nit lañ. non ñooñu da foofu laa laay wax ñooñu tamit ñàkk pexe la wax ne pexe la parce que yow ci li ngay yëngu nga yaakaar ko te fi ngay sa fi nga nekk sax mu doy waar nga dem loo bi amatuloo beneen option xëy na da nga jàpp ne lii mooy solution bi waaye lan moo la cee fekk boo ko defee xamoo ko te am ñi nga xamante ne réew mi def leen yaakaar teg leen ci béréb ne leen lii yéen war a saytu lii. fexé yenn jafin yi bu len nangu askan gi ci loru xëy jigen yoyu tay suñ ñaata ay yaay ay suñu sister ak ñuy jaay kobo loolu lay yaakar koŋ yi ay koŋ yi ñu dem di ci di ci di ci di ci dundel di ci dundal seen jobor di ci jappalé ku nekk nak ñooñu loolu lañ am amuñ benn option nee la balaa affaire spinaba bi li genn gis na ay jigéeni Gambe dem senegal ben training ben den dajé fa ay yeneen jigéen jógee benen rew waxna ko ñu demaleen gis I was very inspired xam nga li tax ñu ñoo lakkee jën dugal ko ci fuub bi sonn yak yooyu ñu ne euh, organisation boobu ay fogat bal la ba ñu ne coono def ci bari coono dañ bëgg a élever standard bi yokkal leen xam-xam ñu ne li ñu ko den defee ci at yu yàgg yi def jot na pour ngeen seen système bi mu gën a mu gën a mu gën a set mu gën a yomba ci yéen waaye ngeen mun cee dund tamit coono bi wàññeeku. Mm-hmm. ñu tàggat leen yokk xam-xam bi waaye fekkee ne ñii amuñ keneen ku leen gunge. ñu dem ba wañi bari li genn fi yow yaangi tok ci poto poto yi ci place doy war la ngay def wa xam nga do japp ne spray bo ñe spray fi ni day wañi dem wa lool la la man la man la waaw ok xam nga tay ñom ñom ñu ngi koy def pour sikio sen properties ci absolument mo sen business bi wa pour sen business bi nek sa place yu nek ci fuñ nek fofu rek is not hygiene exactly fuñ nek is not hygiene in a sense ne lool yeb responsibility food safety la pour yow nga xam fan nga war a teg tey exemple pour war a jaay lekk bu nga xam ne daay rek dafay dem ci biiru nit ki. on responsabilité boobu sax dafa yaatu exactly responsabilité boobu. dafa yaatu mooy force ñoom. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk food safety seen responsibility. kilifa yu bari surtout. waaw kilifa yi surtout malaa nga ñëw ci li nga xam ne moom moo nekk health sector bi. ak ci ak ci council yi nga ñëw ci suñ local authorities yi. tey mu leex la ne tey gis nga fii sax xaw naa nekk jàmm waaye demal ci kaw gi da gis. fu ñuy jaayee sow soow mu nga xam ne boo ko jandee direct amut leneen loo ko mun a use xam nga jën yi sax nit mun na koo jënd raxas ko togg ko. def ci lu def ci lu tàng. Mm. waaye soow bu nga xam ne ñan mm. fi ñuy toog di ko jaayee boo ko jëndee noonu nga koy jëlee rek dugal ko sa biir. nga gis weñ yi gis salte bi. te loolu yëpp mu wóor la ne responsibility food safety la pour nga mun a ko ku ne ko place bi warula la fee toog nga jaaye fa direct lekk bu nga xam ne boo ko jëndee ci sa biir bi lay dem. on sax ñoom dañu am a big role responsibility bu ñu war a def pour close ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci local business sector bi pour advice leen because wax nga ko léegi tey ñi ci nekk ñu ci bëri gëm nañ ne ku ci xëy bi ngay dem doo am loo toggee cin da ngay dem nga jaay sa njaboot ñëw jël si ko dem marché pour togg añ léegi nag kooku boo ne ko yow fi ngay toog dafa salte bul fi toog amut fenn fu muy toog dafay ne kii daf ma bëgg daf ma bëgg teg bekkoor te ñoom sax demoon nañ ba tiita jigéen ñu fay yëngul man dégg naa ñeneen ci ñoom ñu ngi wax ne waaw seen yaakaar moo tasoon parce que dañ bëgg a yàq seen business te ñoom buñ buñ stoppé jaay koboy lan la ñoo jàpp is that what I'm saying léegi nag léegi nag coming back to leneen lu nga xam ne ñang wax na ko ok man si suma boppa sax daf ma xaw a tiital ci ne Gambia as a nation mënuñoo am équipement bu nga xam ne war naa mun a test products yooyu bañ xam ne ñu ngi doon use sniper bi wala yusuñ ko bañ yóbbu lii Sénégal onasaan nga test ko doog ko indi yow tey nga am di guts in mind of ne ah kon ndeke kobo yi ñu doon lekk yëpp ñu ngi ci doon def sniper a nation like Gambia loolu tamit is something lu nga xam ne from the highest authority muy His Excellency President Adama Barrow Ministry of Health understand nga food safety under the vice president of the republic of the Gambia ñoom ñëpp war nañoo jël matuwaay ci nu mu gën a gaawee lépp lu jëm ci laboratory test lu jëm ci wàllu lekk ak chemicals yi nga xam ne dañ ci am xel ñaar nañ def pexe ngay la yëwén réew mi ñu amal ko suñ bopp ba buñ ko yaakaaree ci biti loolu loolu dafa daw dafa daw yaram de yow tey ñu bëri da ngay lekk maxal nga toog tuuti sa biir bi daw mun na am kobo yi ñoo ko doon def waaw doo xam naka la. <laughs> te ñu ngi loolu tamit mun na yàq business mbaxal bi de. te amoon na non lii moom bu amee rek xamal ne. if ah, ministre lii moom bu amee ministre yi sax. mooy koŋ yi duuf yëpp ñoo ko day lekk. te mun naa am koŋ yooyu yëpp spray. waaw definitely waaw ba si yi. waaw léegi léegi gaa ngi wax final yi rek pour ñu final round mooy ñu ngi xalaat pour imposer ban on this a spray ci réew mi ay fii ak octobre. Euh, est-ce que loolu mooy solution ba pare tamit bu fekkee ne loolu bokk na ci solution yi naka lañ mun a def léegi ba gungee tamit euh, jaaykat yi kobo yi ak yeneen jën yi pour ñu jimbale leen sensitise ne mais bi wax leen yenn yenn yi soo leen ci defee lii mooy jeexatal bi lii mooy jaf jafe-jafe yi lay indi ci réew mi ce que loolu tamit warut a bokk ci sensitisation wala ci programme yi ñoo euh, war mën a teg pour yaatal seen communication bi nit ñi xam. ñoom seen taxawaay mu gën a yaatu parce que nag ay solution la ñu ut fu mu nekk nii ba problème bi moom am na te déggal nañ ko ñoom. waaw baal moom d' accord ma si ñoom ñoo ñàkk a def seen liggéey ba incident am si ñu bëgg a yàq ay xëy jàmbur d' accord ma si. baan bi mooy spray bi la ñu. baan pour spray buñ ko baan Amadou xam nga lu tax ma ne buñ ko baan. Mm-hmm. maam wax na la fi léegi ne am na ñu ko dee jaay seen su cey ni si ñu am seen néegi mooy matt yi. Ah. te yàlla gis nga raxmaaneem googu xam nga loolu moo tax matt yi bëri léegi mat bu ci nit commencé ou dépense le bari stéréo sax mat yang fa bu ko am na ñi xey ñi nga am mat dañ ko faa yóbbaale mat nak bi nit yalla dafa am yërmande bu nit gàddoo parewu lu lu ci am mu yobbu ko defal ko Sila ci la mu yobbu ko defal ko njabotam den ci la Sila la sila am si la ci la ci la ci la commencé bari ko mune mu a xey ba wacc bu abora am lo yobbu ci sen njabot so afta nak ci la gis na mat yi bari neen bu am na ñi nga ci ne paré du pare sen njabot njaboot sa na ko yow am na ñu koy ay dóor waar dóor katiwaar yi nga xam ne si lañu dem di pompe looloo ko tax a jóg pompe yi nit ñi fay leen seen yoon yóbbu ko dundalee ko seen njaboot léegi soo ko baanee yow lor nga ko te yow sa ñàkk def sa liggéey moo tax loraange bi am si léegi nga bëgg seen lor ñaar téeméeri nit ñoo xam ne ni tey ñu ngi gàddu seen loolu di wër si néegi di koy spiral nit ñi pour nit ñi mën a nelaw nelaw bu dooy kooku nga bugg ko kooku boo ko boo ko baanee tey yàqal nga ko lifinam te yow indiloo ko dara te yow seconde sa càggante mm-hmm. moo tax lii am. ma kon man baax na d'accord ma ko. ok baax na léegi ah, waaw baax na léegi nañ ci.